ñëpp di ziar aussi suñu kilifay diine yi ak suñu kilifay aada yi ñu di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba projet yëpp yàlla sottal ko di ñaanal ñi nga xam ni dañu feebar yal na yàlla yëkkati leen ñi nga xam ni aussi dañu juum ba dugg kaso ñoo ngi leen di ñaanal buñ ca génnee yàlla bu ñu defati lu leen fay dugal parce que liberté nag moom elle est sacrée waaw Eh, di ñaanal suñu mbokki sénégalais yi nga xam ne tabar fa kàll continent boo dem ci àdduna bi ñu nga fa di daan seen doole ñu ngi leen ñaanal li ñuy wër yal na ko yàlla yombal parce que tukki dafa metti bari ay coono yal yàlla defal leen xéewal ngeen ñibbisi nag ñun ñëpp ñu toog suñu réew defar ko eh, di ñaanal eh, ñi nga xam ni aussi dañu nekk ci réew mi te am ay jafe-jafe yal na yàlla saafara lépp te nag mënul ñàkk parce que alxuraan dégg ngeen suñu borom a ngi naan inna mahal ushri yusran fa inna mahal ushri yusran kon nag képp koo xam ne yaa ngi dund ci àdduna rek war nga xam ne àdduna dafa am ay jafe-jafe waaye nag euh, yal na yàlla saafara yépp e, tey nag euh, xam ngeen ni seen jigéen seen xarit mbayang moo fi waroon nekk waaye dafa dafa am jàpp-jàpp politique bi politique bi nga xamante ni da gis euh, nit ñi di am ay jafe-jafe di xeex ak suuf si nga xamante ni coow li bari na ci trop parce que xam nga wax naa def fii benn euh, émission boo xamante ni eh, dama leen waxoon ni leen euh, loolu ñuy wax domaine national bi eh, loi la boo xamante ni am na waaye may moom euh, léeg-léeg noonu lay demee waaye ñoo ngi doon wax ni jërëjëf waaye Tafa nag euh, sama woyu mbokk woowu <laughs> waroon ko ko bàyyi euh, Ndey Fatou Ndiaye moom ma mama Mbaye ndeysaan mama yàlla na ko yàlla xareel aljana bi njaay séddil wujjoot sallallahu alayhi wa sallam kooku sama mbokk la ah mbirum suuf mi daal bëgg nañu cee waxtaan bokk koog yéen parce que bari na coow te suuf moom xam ngeen ni du yokk te nit ñaa ngi yokk euh, ñu ngi gën a bëgg ay dëkkuwaay ñu ngi gën a bëgg fu ñu bay eh, boo demee ci àll ba ñun élection référendum bii weesu ñun ñi dëkk ci kaw ga yor ay tool li taxoon ñu wate mooy poñ bi noonu waxoon ni dinañ ñu defal ay titre foncier parce que exode rural bi njëkk a am ci Sénégal li ko indi mooy loi bi ñuy wax domaine national parce que bu fekkente ni sa suuf say maam di ko bay lu mat junniy at te ñu ni la am na saa yu ko nguur gi soxlaa jël ko te bu ko jëlee lam lay jox ay miet lay doon du faj soxla bu yàggee nga dem ci taax yi parce que amatoo foo dëkk donc suuf si nii ñuy dimbalee waa taax yi ñuy am ay titre foncier nañ ko dimbalee waa àll bi ñu yor tool yu yor ay titre foncier ay kër yu yor ay titre foncier parce que nag ñi dëkk ci àll bi ñi dëkk ci taax yi gënuñu leen ñiy protéger ñi nekk ci taax yi xëy na nag dañu ëpp coow dàq ñoo marche gën ñoo mën a taali pëna waaye nag suuf si nañu fexe ba képp ku yor suuf donn ko ci say maam ñu fexe ba defal la kayit yoo xamante ni suuf soosu dalay jariñ parce que suuf dafa am solo mais su fekkente ni par exemple dëkk boo dem rek coow lu fa juddu coowul suuf la parce que suuf si léeg-léeg ñu jox ko koo xam ni dëkku fa sax cosaanoowu fa ñu koy daggal ko loo xam ne ay hectares yi hectares yooyu mën naa indi coow ci réew mi nañu ko jéem a seet nu ñu koy defee ba nga xamante ni su amee loo xam ni réew mi mépp ñoo koy jariñoo nga xam ni mënuñoo ñàkk jël suuf sax ka nga moomoon suuf sax ñu jox ko teraanga joo xam ni dootu torox mukk ci àdduna waaye fekk nit mu donn ay tool junniy at di ko bay nga xëy nangu suuf sax di ko jox ay mètre carré ay ay trois mille francs ki deux mille francs yooyu dëgg-dëgg teguwul fenn ni ñu respecté taax yi ak waa Ndakaaru nga xam ni ñu ngi leen di defaral ay titre foncier nañu ko jéem a élargir ci àll bi parce que waa àll bi nag wax dëgg yàlla ñooy bay liy dundal réew mi te soxla nañu ay kayit yu leer nañ mais yor sa suuf yor say tool donn ko ci say maam junniy at ñu di ko bay ñu koy xëy di nangu suuf sa te doo ca man dara lu metti la loo xamante ni wax dëgg yàlla metti na ci ñi nga xamante ni dañu dëkkee ci àll bi te coowul suuf lu mat di moytu la nit boo koy jox suuf ci dëkk day am ay critères na fa dëkk na fay def loo xam ne njariñul ñëpp waaye xëy xëy dagg ay suuf jox ko benn promoteur immobilier rek mu ñëw tabax fa ay kër jaay ko wax dëgg yàlla loolu it ña fa dëkkoon daan fa bay ñàkk ko lu méttee métti ci waa Sénégal la euh, euh, langu politique gi aussi. parce que gars yi li ñuy xëccoo kenn xamul lu mu doon parce que dama jàpp ni politique ni ñu ko daan defee bokkul ak ni ñu koy defee léegi parce que léegi da ngay gis euh, chaque fois réunion politique am ngay seen ñuy dóorante ay pour quoi du réew mi de parce que Sénégal bu fekkente ni ña daje ca saal ba ñoom ñëpp liggéey lu avancé Sénégal moo leen boole ku jiitu sax keneen ka du wax dara waaye fii ñëpp dañoo bëgg a doon euh, kilo te libre dafa war a am genn wàll libre am xëccoo bi metti na politique nañ ko assainir parce que du yëfi du yëfi golo yëfi nit ku yiw la ñi nga xam ne dañ ko doon def li ñu ko doon defee mooy fexe ba défendre seen réew défendre seen i intérêt yi réew défendre seen i intérêt yi gox mais léegi bu fekkente ni mbaquus wi ci nekk rek moo tax gars yi di xeex ak xulo loolu lu salte la loo xamante ni dëgg-dëgg jëmul fenn Sénégal fi ne dem nañ ba koo wax rek mun la bëggatuma politique koo wax mu ni bëggatul politique parce que politique bi ni koy doxalee ñaaw na salte na te it amul benn civilisation bu nekk ci biir te dama jàpp ne politique kenn waru ko def pour di ci dund da ko war a def pour dundal réew mi toujours ma fàttali leen ni leen li John Fitzgerald Kennedy waxoon ni bul laaj li nga li sa réew man ci yow waaye yow laajal loo man ci sa réew nga defal ko sa réew loolu mooy euh, mooy li nga xamante ni moo war a nekk objectif u politicien waaye su fekkee politique tremplin la boo xam ne rek da nga ci amee xaalis am ci ouverture am ci carnet adresse pour rek yokk yow dong ak sa waa kër ak say surga say mbindaan yooyu taxut ñuy wax sur ñuy wax politique politique euh, baat bi li mu tekki rek mooy fexe ba changer say conditions yi ngay dundee waaye du loo xamante ni nag kenn ku nekk da ngay xëccoo mbaquus ba saa ci parce que as gor pire suñ ko ne yaay séddale du am waaye léegi benn moral amatul ci politique bi ba ñépp a ko sib fi ne nii ndax ni ñu mel te it politique bu njëkk civilisé woon na ni ko ñoom wal joojo Ndiaye doon defee ñoom Blaise Diagne ñoom Ngalandou juuf ñoom président Lamine Gueye ñoom mamadu Dia booba yii xewut xam ngeen diggante sengoor ak ab Ablaye Wade benn wax képp la Senghor masa wax ci ab Ablaye Wade boo xamante ni daf daf ñu doon reeloo sax mooy euh, bopp bu àttanul karaw attanul am réew ak boole kook ab Ablaye wadd mooy njomboor loolu dara ñaawu ci waaye léegi saagante bi waxante ñaaw kenn ku nekk di xas sa morom di ko wax baat yoo xamante ni sax dëgg-dëgg xanaa boo toogoon jàkkaarloo ak ay doomam wala soxnaam doo waxe noonu nit bu fekkee day warum réew day wax wax joo xam ni kii ñi nga xam ni ñoo parce que nag da ngeen a bari coow rek yéen politiciens yi waaye matu leen 20 pour cent 80 pour cent des autres sénégalais ñu ngi yor seen i ñoom dañuy toog rek di di xool bu ñu gisee ku leen doy ñu wateel ko bu ñu gisee ku leen doyul ñu wàcce ko waaye yéen dëgg-dëgg nii ngeen di defee war ngeen koo seetaat ci seen biir coow li bari na xuloo bi bari na saagante bi bari na waxante lu bon li bari na teyit yéen wax dëgg yàlla comme seen waxi daaw lu doon mukk seen waxi ren xam leen ni nag ñi am fulla ci réew mi am lu ñu bëgg di nit ñoo xamante ni dañoo yorum xel déglootuñu leen ay débat sax la ñuy bañ a seetaan ci ci ci télé yi ndax co ndax xastente bi parce que as gor du xas morom ja yow am nga looy nëbb kenn ku nekk am nga ruq boo xamante ni boo sañoon kenn du ko xam bàyyi leen weerante bi te politique wax dëgg yàlla du nii ñi ko doon def dañ ko doon def pour dañ cay ñàkk sax seen alal parce que dëgg dëgg nag boo ko seetee ci wolof kaay falu mooy kaay dee ndax yaay jënd ordonnance yaay dem ci dëj yi di joxe jaxal yi yaay jënd nag yi dëj yi yaay ngénte xale yi yaay def lépp politicien yooyu la ñu xamoon waaw waaye xamuñu politicien boo xamante ni ah, te léegi li ci gën a garaaw sax mooy am na sénégalais yooyu juddu nañu ba ba am cinquante ans mosuñoo liggéey politique rek mooy seen métier waaw ku falu rek ñu ànd ak yow tey la sëñ Bay Jaxate waxoon mooy dëgg koo xam ni boo yoree mu ànd ak yow boo ñàkkee mu bàyyi la ku ko am amoo xarit ku ko ñàkk ñàkkoo xarit kon nag dëgg-dëgg war nañoo seetaat ni nga xamante ni noonu la ñuy defee politique te ñu di ko teg nag ci ngor teg ko ci li nga xamante ni moom la ñu doon xam ko ñun xamuñu waxante ñu ñaaw xamuñu saagante te Sénégal ku la mag ñaari fan sax da nga war a jox cër waaye réew mi léegi gone yi sax daanaka ma maanaam eh, bu ñuy wax ak mag dañuy mel ni kuy wax ak seen moroom parce que amuñu yar amuñu teggin man xaw ma li ñuy lekk la xaw ma nu mu demee waaye léegi ku la gën di gone gën laa yor xarum xelum mala tey loolu war nañoo seet lan moo ko indi ñun li nu donn mooy mag dañ koy dañ koy respecté bañ nañ ko ba dañuy wax ni mag mat naa bacim réew am na borom xam-xam bu mag nee na mag mu génn àdduna mi ngi mel ni teg bu lakk kon nag nañu respecté képp ku la mag nga jox ko cër bu njëkk boobu masaan a génn ci mbedd mi doom yi doom yi ñépp la ñuy doon ku def loo wërta def kala mag duma la yar la teg la ciw yoon boo demee sa kër baay boo ko nettalee sax mu dumawaat la léegi nag gis nga ko koo laal doomam mu ni da yóbbu police te njaboot gi noo ko bokk nun ñépp na defar te bàyyi nii nu mel nii nu mel moom jëmul kër parce que réew moo xam ne ay wax rek lañ ko bëgg a tabaxe mooma réew ci màbb rek lay mujj nañu seetaat sunu sunu sunu sunu bopp seet ni ñuy doxalee ñi jiitu nañu xam ne tey jii ñoo ne ci nguur gi waaye bu ëllëgee dañ ciy jóge amul benn nguur bu sax bu dul bopp tabaraka wa kon nag boo faloo calculal ni wàcc ngi ñëw ku yéeg rek di nga wàcc lu yéeg ba gën a sori nag jël ba gën a métti kon nag calcul leen ni lii day jeex léeg-léeg nga gis waa joo xamante ni ci nguur gi passé su daan génn biroom di dem këram ay motaara yi jiitu di ko xàllal ba mu yegg këram tey jii day dawal ci mbedd mi ba mu yàgg mu paan moom dong mu ànd di woop mécanicien ku ne di ko romb bu ko boo ko rombee nga war a xam ni nii rek lay mujjee kon nag loo xam ni da nga koy ñàkk jërul yàq sa ngor nañu nañu calcul te sóoraale lu baree baree baree bare sénégalais nag dëgg-dëgg melul woon nii de waaye nag léegi li nga xam ni moo indi lii du dara lu dul dañoo dem ba bëgg a jël lépp rek def ci benn paje te xajunu ci benn paje waruñoo bokkit benn paje réew mi dafa am nu mu tëdde woon am ñu daan jiitu am ñu ci topp waaye nag bu ñu demee ba mu yàgg ña baaxoon jiitu ña ña ña yéesoon des ginnaaw ñu dem ba mu yàgg ñu ni dëpp leen xam leen ni la bon mooy jiitu te li bon nag bu jiitoo wax dëgg yàlla du baax mukk ci àdduna waaye am nan yaakaar ni dina changer ndax léegi nit ñëpp xam nañ ni ku dem ba xamatoo foo jëm da war a dellu fa nga jóge te lii du jëkkul jaaduwul du xas moroomam boo xamee ci nit ci lu bon boo boo ko xamalee nit te gor góor doog ko bëgg a wax parce que waat bu bon moo gën a métti paaka bu ñu la jam ci ginnaaw nit kenn du ko xas xas baaxul léeg-léeg nga gis crime yoo xam ne ay wax ju bon rek moo koy indi nanu bàyyi wax ji na nanu bàyyi wax lu ñaaw parce que loo waxal sa moroom rek bu melee ne yow mën na koo fayu waaye nag dañu ni bu la mbaam wéqee nga wéq ko da ngeen di doon ñaari mbaam te am na ñooñ bëgguñoo doon mbaam kenn kuy wax ci sa morom na nga ci wax lu rafet tey dañu ne saan wuy dem di dellu si wëttéen doy na ca wax parce que wax dëgg yàlla loolu baaxul mbubb boo ko nattalul sa bopp bu ko nattal keneen loo bañ loo bañal sa bopp bañal ko sa moroom même bu la bañee sax bëgg ko parce que loolu mooy ngar mi ngar du bañante maa ngi toog léegi ak ak suma benn xarit bu ñuy wax Alioune Aydara Sylla mu may nettali euh, ay ay wax yu sëriñ sëñ Mor waxoon sëñ Mor euh, di ko nettali ni ko gis nga nit bu la bañee maanaam ba waxal la lu bon boo demee ba sa kër nga toog yow dong ak yàlla nga seet ni lii mu la waxal dëgg la ci lu bon fexeel ba nga xeex ak loola nee na bu yàggee rek nee na bu ñu lay waxal lu bon ki la koy waxal di sam noon bu yàggee lool te bu bàyyiwul wax ja xamal ni yow baaxoo parce que soppiku woo bu nee da ngay sàcc bàyyil sàcc su nee da ngay def leneen bàyyil leneen waaye bu fekkee sikk yi mu xam comme moom ki la bañ moom saa yu xëyee say sikk rek lay wër waaye sikk yi mu la xamal yépp wax ko yépp ca pénc ma fex nga ba xeex nga ak sikk yooyu yépp ba defatoo ko mais day mujj noppi <laughs> day mujj noppi la Cheikh Umar Fouti yi waxoon waaja rek ba mu ñëwee ni ko kii sama xarit la woon dañ daan ànd mu may waxal lu baax fu ne léegi nag fu mu toog di ma xas Cheikh Umar ni ko loolu jarul mer est-ce que lim lay xase dëgg la wala du dëgg su fekkee dëgg la jarul mer soppikul su fekkee du dëgg it jarul mer parce que wax joo xay du dëgg jarul mer te gars yi dinaa leen xamal de noonu lu baax ci doomu aadama la respecté leen seen ennemi yi ennemi day avancé nit li nga war a jël nit di ko fay trois cent mille mu doon sa conseiller léeg-léeg noonu defal la ko gratuitement <laughs> man dama ne gars yi sax képp ku xam xam noonu mu lay waxal lu bon nga di ko dégg di jéem a defarwaat ba dootu la waxal loolu xamal ni kooku jéggal ko te ñaanal ko mu yàgg fi parce que léeg-léeg nit yegg foo xam ne nag am noonam moo ko fa yóbbu waaw moo tax waxante lu bon yi yaa ngi koy wax nit defe ne da nga koy da koy da koy da koy tardeel mais danga koy avanceel parce que nag as gor boo ko waxalee loo xam ni lu ñaaw la te muy dëgg ah da koy jéem nag changé kon nag gis ngeen numéro yaa ngi noonu ñi nga xam ni parce que lu nuy fii waxtaane rek am na ku toog ca gën nu koo xam ëpp num xel fuuf yàlla na too rek nu toog fii waaye am na ñu nu gën a xam kon nag kenn ku nekk woote dugal ci sa xalaat mbirum suuf si daal bare na coow mbirum politique it bare na coow politique moom daanaka ñu baax ñëpp sax wocc nañu ko koo wax mun la nu may def ba ba ko man bëgguma koo def te bu pourtant nag politique mënul ñàkk parce que pour nga nekk président de la république foog nga politique pour nga nekk député foog nga politique pour nga nekk leneen ak leneen foog nga jaar ci politique waaye nag nañ ko assainir def ko politique bu silwiise boo xam ne dañ ci indaale nag suñuy valeur suñuy valeur mooy respecter ku la mag respecter it sa nawle rek respecter parce que doomu aadama yépp dañoo war a respectante te it boo respecté wul kenn xamal ni kenn respecté wu la waaw ñu jël kooku ci ci ligne bi salaamaaleykum. waaw sëriñ bi ñoo ngi ziar de. waaw ñu ngi ziar xam nga woo naa la ko xaajal kuréel bi sax parce que Sénégal bëri na waar. Mhm. nga buñ deful mhm. yi duñ jaay réew mën naa la wax loolu. <laughs> rek le promoteur yooyu ngay wax. kër yooyu ñuy defal lu ci bëree étranger dañ koy jaay. ah voilà. am chinois am nañ fi droit. Inde yi am nañ a droit. Guinée yi am nañ droit. ñeneen ñi ci droit ba mu def Sénégal yi. ñi ñuy jiite depuis Senghor ba su ma yoon ne seetlu seetlu boo ko fa. yàq réew mi rek ci la nekk ñu Sénégal def na tuuti. Sénégal yi dootuñu ci am benn benn benn benn benn àq. am parce que am réew moom boo boo ko dee jaay Sénégal ñun war war waruñoo nekk kenn ku ñu gënul gënul réew mu sëñ Tuubaa wàcc mhm. Alaaji Maalik nekk fa mhm. Seexu Umar Fuutiyu nekk fa mhm. Baay Laay nekk fa réew moomu waruñoo ñee waruñoo des di ginnaaw kenn dëgg la waaye ñii ñu jiite ñooñu gëmul waaw Sénégal loolu rek moo fi ne ñi jiite réew mi ñoo gëmul réew mi jërëjëf ñu waxante dëgg loolu moo fi am jërëjëf sëñ bi jërëjëf <clears throat> loolu leer na parce que nag ni muy doxee moom bu nu ko arrêté wul dinañu toog ba sénégalais dootu fi manaam a waaw parce que loolu nag c'est pas normal yi nekk même marché yi nekk ci biir dëkk bi sax étranger yi lañ koy jaay parce que ñoom dañuy fay waaw nag am na am na ñun ñun waa Sénégal am nañ ci part de responsabilité nag parce que nag ah, waaw am nañ ci part de responsabilité parce que am na loo xamante ni ah, am na taxawaay boobu boo ko taxawee rek ñu jaar ci sa kaw jàll waaw ah, moo war a am ful voilà mu ngoog exactement jërëjëf jërëjëf jërëjëf parce que nag léeg-léeg ñu ñu wax la ni la nangami hectare jox nañ ko chinois <laughs> nangam jox nañ ko ab ab malaisien nang maanaam daal euh, mas na maa liir ci journal yàgg na ñu ni Sénégal jaay na li tàmbalee jam ñaajo ba jas xam nga loolu c'est pas normal te yooyu ay conflit lay mujj di indi waaw parce que nag gis nga tànk ñi yor réew mi réew mi jaralu leen seen bakkan gënalu leen seen bopp du ñu defar réew mi am réew moom la la Bouna Alboury Ndiaye waxoon rek mooy bu ñu la joxee keesu réew mi nii la séddale ko nga nga ko séddale ëpp la ca ëpp la ca du yow yaay defar réew mi as gor yaa jiitu doy na ko sëkk parce que lu dol ni président de la république loolu kenn mënta am lu ko wecc alal du ko def leneen du ko def ñëpp toog ñëpp booy génn ñu ñu taxawal ñëpp nga jàll waaw bañ nañ ko ba sax am na bis yooyu bu ñëwee yow rek la réew miy déglu loolu honneur boobu loolu al moo gën alal teyit nag ñii fi am histoire ñu di leen nettali di leen tudd émission yi may def yëpp ñi ma koy def amu ci kenn ku ma mas a dem ñu ni ma bàyyi na fi 2000 francs <laughs> waaw bi bi mu dee bàyyiwu fi 2000 waaye bàyyi na fi ngor bàyyi na fi jëf ju rafet bàyyi na fi njàmbaar bàyyi na fi ngarmi bàyyi na fi yéwén ah da ngeen di dégg sax bu ñuy woy ku mel ni Mamadou Bitigué ba tubaab ba joxoon marchandise mu di ko may néew doole yi ni ko man mënumaa yor alal nit ñëw ni ma damaa xiif xam nga yooyu ñun yooyu la ñu am ay valeur mais léegi nag lii lépp xaalis a indi l'argent l'argent moomu nga xam ne te xaalis bi sax boo déggee tur wi nga xam ne nu ko CFA communauté africaine française <laughs> nga ba pare on te parle d'indépendance ñun fi danoo tardé danoo tardé ci lu bëree bëree bëri mais nationalisme moo ñu manqué patriotisme moo ñu manqué citoyenneté moo ñu manqué ñun bëgguñu suñu réew suñu bopp la ñu bëgg te wattal naa la ci yàlla ni bëgg sa réew gis ngeen addis yi dañu ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk nit day bëgg réewam boo bëggee sa réew doo ko wanteer doo ko jaay doo ko yombal ah xoolal Sénégal fu waay jaar dugg ah Sénégal fi mu ne nii ñu ngi defari carte d'identité waaye boo fa demee dangay xool ñoo xam ni xa ñii wóor na la ni du ñuy sénégalais mais defaral nañ leen i kayit léeg-léeg nga dégg ñu ni sax euh, pouvoir bi defaral na ay étranger ay ay ay carte électeur pour ñu wateel leen pour pourquoi ngay jaay sa réew ndax sa bopp dong ah nous sommes treize million ou quatorze de sénégalais yow da ngaa jiitu rek waaye du yaa gën yàlla moo la tànnal nguur boo demee ci bàqara ma ngi koy wax du dëgg kon nag nguur googu te da la koy musal rek <laughs> ba mu yàgg mu génne ko bu mu la dof loo luy jeex jërul dof waaw boo reggee da ngaa war a jooy <laughs> as piir bu reggee day jooy buñ ko nee looy jooy mu ni xiif a ngi ñëw <laughs> boo xiifee da ngay ree xam ni regg a ngi ñëw noonu la àddunay doxe nañu nañu seetaat suñu bopp <clears throat> yaraat suñu bopp li ñu doon doon ci ay valeur nu téye ko te di ko jàngale ci école yi parce que yii yëpp li ko tardeel mooy keneen rek lan nuy jàngal waaye jàngalu nu waa réew mi jàngalu nu jëfi réew mi jàngalu nu dara loo xamante ne daf nuy avancé la mësumaa gis mukk kuy tibb di sexalub jàmbur ba mu yàgg nga reg non non non boo bëggee reg da lekk sa gémmiñ loolu sociologue bu mag ba ñuy wax jibi jaxate moo ma ko waxoon waaw nee na ma kenn du lekk gémmiñu jàmbur ba ba reg waaw boo koy xalaate nag gën gën a tey yenu say dal xool leen rek réew mi bu jógee daara fekk jaar na daara taxani na dem na tool wëgg na suqi na waaw yóbbu na nefere ca tool ba tas ko def na yooyu yëpp wetti mbuum mais bu ñëwee ndakaaru day réussir parce que mbiram da koy wékk ci nangoo sonn ak jaamu yàlla mais du ko wékk ci ay calcul ak on va cerner les risques yooyu tubaab yi parce que euh, léeg-léeg nga jàng-jàng woo xëy bu soree lool da lay jéng dongo daara yi xool leen di ñu réussir ci réew mi te maa ngi wax politiciens yi ni leen bis bu nu jëlee réew mi teg ko ci loxob ku génn ci daara yii daara yu mag yooyu lu mel ni Fass Touré lu mel ni Kokki lu mel ni ñaxal lu mel ni dara Daraman lu mel ni dëkk yooyu dëkk daara yu mag yëpp ah, Pire Xaali Amar Fall daaraam ja ah ah ñooñu bis bu nu yoree réew mi dootu dugg ci seeni loxo ndax ñoom dinañ ko réaliser xool leen li ñu réaliser li ñuy réaliser ma jox leen benn exemple toujours ma joxe ko waaw muy Serigne Boub sëriñ Boub mus sa toog ci bangub école xool leen est-ce que li mu réussir gars yi nekkoon ca université de Dakar agressé jàngi France wër adduna bi yëpp bi nu ñëwee lan la ñu réaliser lu mën a génn ñaari emploi surga la ñuy doon rek ba traité waaw nañu xalaataat waaye Sénégal boo jàngul sax nasaraan bu ñu dee wax intellectuel yow mi jóge ca daara ja boole wuñu la ci déedéet ñoom daal euh, ki jàng réew mi jàng làkki réew mi bokk ci réew mi di doxee ni réew mi doxe kooku boole wun ko ci Sénégal bu ñu parce que bu ñu nomee woon fi ne sax benn dongob daara <laughs> jàngkati nasaraan yi daal di jóg ak société civile ak ONG yi ni non kii amul diplôme yow ki man a def loo mënta def mais kooku du sa morom allo allo. salaam sëriñ bi noo foo nii bisimilah sëriñ Babacar. waaw ñu ngi kontaan ci sa émission. Mhm. ay ndaw la ñu nekk Sénégal ci góor bi mhm. chaque jour dañu lay déglu wallaahi la mhm. ndax émission boo ko defee nii aar dina si man demoon naa si gaal yi waaye yàlla xam na ne maa ngi toog Sénégal pour liggéeyaay. Mhm. ndax euh, Sénégal mu ngi mu ngi loo xam ne. mu ngi ci liggéey quoi. ndax euh, boo boo gisee ñu écran yi ñu ngi wax naan ñu ngi nii. man damaa di topp yi di taxale. wallaahi ajim maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. yàlla na jëm ndax nit boo gëmee la mhm. mhm. ndax euh, boo xoolee boo xool étranger nga bu mhm. ah, ngi wax lu am solo dagg na waaye xam nañ li nga bëgg a wax nit bu gëmee boppam te doylu te bañ a yàkkamti mën naa yegg fu ne même bâtiment immeuble bu R plus 4 soo ko bëggee tabax te léeg-léeg nga mool benn saaku wala ñaari saaku wala ñetti saaku te taxawoo dina mas a yegg waaye nag bu fekkente ni kenn ku nekk dafa bëgg xëy rek sotti xëy sotti nag euh, parce que taw bi lay jig mooy bi mësay <laughs> mooy wis-wisal waaye yuréet moom pëng rek nañ bàyyi yàkkamti bi te gëm suñ bopp parce que même étranger yooyu muy wax bu fekkonte ni fekk nañ xale yi gëm seen bopp xoolal ma rek liggéey ba am deux millions et quelque ni da koy fayee gaal parce que bëgg ngaa dem Europe Europe dara newatu fa Europe ñoo ñu ëppi problème Europe ñoo ëpp ñuy fanaan ci mbedd yi xanaa au moins Sénégal sax mbedd mi ñi fi fanaan wu euh, bareewunu noonu de waaye Europe moom boo fa demee SDF ya comme caaf parce que ni ñu mel ñu nii waaw doo dugg ci kër jàmbur rek mun la kaay amoo foo tëdd ñëwal fii nañu xa gëm suñu bopp bu ñu gëmee suñu bopp rek mën nañ avancer ñu jël kooku ci ligne salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw bisimilah sëriñ bi noo tudd ak foo ni woowee. man Tamba laay woote. waa Tamba sama goro yooyu. <laughs> waaw waaw waaw. dafa am euh, démb dama seetaan émission bi. waaw. léegi sama benn euh, kii ma am benn xale bu ci woote. waaw. léegi euh, boo ci wootee léegi mu am kàttan bu ko réer. Mhm. bu bu bu Baara bu dëkk Côte d'Ivoire. waaw. moom Côte d'Ivoire la la tudd. waaw. man man man Ba Ndiallo dama nekkoon ko léegi ko mhm. waaw léegi nag ma bëgg bu fekkee man mën naa am numéro. waaw xam naa nga jël numéro Adja nga woo ko parce que moo doon traité loolu. waaw jox ma numéro Adja Mbaye. da ngay jël 77. 77 waaw 534 91 85. 77 534. 534 boo ko woo xam naa dina dina. 534 534 non sëñ bi déglul ma wax la 5 534 91 85 voilà voilà exactement waaw kay waaw nañ gëm suñu suñu bopp nañu gëm suñu bopp te xam ne gone guy liggéey fii ci réew mi di taqale say ñaar fukki dërëm ak say téeméeri dërëm ba am 2 millions soo ko bawul bala ngaa am 40 nekk millionnaire mais pourquoi ngay financer sa sa deux millions yooyu pour dem Europe nga dem Europe mënoo fa def dara actuellement da bu surtout nag ku amul métier moom jarul sax ngay dem Europe ñi am métier moom Europe du naqari ci ñoom parce que métier boo ko génnaale foo dem liggéey waaye xamoo dara amoo benn qualification amoo benn diplôme ngay génn réew mi sax Sénégal moo war a jël ay lois sax di tere loolu parce que am na ñooñ wax dëgg yàlla bàyyi leen ñuy génn lor leen la parce que waruñu génn génn c'est pas pour tout le monde salaamaaleykum allo allo waaw kooku dagg na xam naa dina jéemaat waaw bu ma sañoon daal ñu seet ñuy génn ñuy génn parce que amoo métier amoo looy def defoo dara amoo benn qualification Sénégal pour aar la daf la war a empêcher nga ngay ngay voyager parce que waroo génn ku amul métier warul génn ré bitim réew neexut amatul dara dégg ngeen Europe ni mu mel actuellement réew yu baree baree bare euh, dépôt de bilan la ñu def waaw yoratuñu tous waaw ngay yor say ñaari million naan da nga koy fay pour génn quoi loo fay wuti salaamaaleykum allo. waaw. salaamaaleykum. waaw bisimilah yaa ngi en direct. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ maa ngi lay siyaare. maa ngi lay delloo ziar. maa lay bu baax. delloo ziar bu baax sama sëriñ. ci waxtaan bi. bisimilah. waaw man de xam naa ne leer na la première fois ma sa woon ci sa émission. Mhm. Sénégal. Mhm. maa ngi ciy ma sa woon tey jii waaye yow sa waxtaan bi nga waxtaan. ñun mhm. ñaati Rasulullah ne ku fi wax yaa ko gën a loo wax bànq. <laughs> macha allah <laughs> ah jërëjëf waay. jërëjëf sëriñ bi euh, loolu la loolu loolu ñoo ngi ñaan yàlla ñaan googu yàlla na ko yàlla boole waa réew mi yëpp ba kuy wax wax lu lu waa réew mi gis seen bopp parce que gars yi toujours dama leen di wax ne ku bañ a dee nekkal ci loo xamante ni ñëpp dañ cay am njariñ koo xamante ni dangaa ëmbal ñëpp aw yiw te ëmbaloo kenn lu koy lor xamal ni boo fi jógee it duñu la gaaw a fàtte léeg-léeg nga gis ku yor lu bari faatu ñu fàtte ko jaay sax lim fi amoon parce que jëfalu jëf deful woon te yàlla tax waxul woon te yàlla tax parce que wax nag boo ca bëggee fay bor leb la ca mën naa am du jub waaye sooy wax waxal dëgg dëgg nag neexul ñépp ku mu neex xayrun ku mu naqarit nga jéggulu ko rek xam ni daal li nga def yow yàlla moo la ko sant moo ne xul xaq walaw kaana murran suñu réew mi kenn du ko defar ci lal ko ci waxante ay raay raay ak i fen dañ koy teg ci dëgg rek mu avancé waaw kuy jàmbaar ñu ñaanal la ku dul jàmbaar ñu ñaax la waaw parce que nag xam suñu bopp li nu tardeel yi yépp ñàkk xam suñu bopp la fi mu ne sax boo boo booy wax sama émission bi léeg-léeg ma romb nit mu ni ma yow war a kaw kaw nga mais bu ko waxee xamul ni fierté bi may jox dafa rëy barki démb rek ndeysaan maa ngi dégg maa ngi dégg ci ngaay mexe ñuy wax dàllu ngaay ah, parce que dàll wa dëkkul ngaay kuure la dëkk bien que nag ña koy defar kuure la ñu dëkk xëy na dañoo toxu si ngaay waaye li ko indi pour complexe la woon rek ca début ba mooy sunu bokk yi dëkkoon kuréeg njawaar kuréeg mbataar gàtteñ kuréeg joor ak ñoom xàndan bu ñu daan jógee Medina ndeysaan wala fi ñu nekk ci Ndakaaru di dem Kajoor dañ naan maa ngi dem ngaay ba ñëpp defee ni ñuy defar dàll yi ngaay la ñu dëkk te booba waa ji la ni mi ngi dem ngaay kuréeg njawaar la jëm wala kuréeg mbataar wala mu jëm kuréeg gàtteñ baa kuréeg joor mais booba pour wax ni kaw kaw laa sax complexe la woon dañ la doon xeeb parce que bu njëkk nag noonu esprit bi noonu la woon mais léegi léegi nag affaire bi changé na léegi ku amul dëkkub cosaan sax tu te un peu faible waaw parce que fi mu ne nii kuy ku am dëkkub cosaan bu muy ñibbi wax dëgg yàlla nag am nga mbégte maa ngi maa sama xel a ngi dem ci fu ñu ma invité woon ndeysaan di dëkk boobu ñuy wax ndogal jeng eh, ñoom sëñ Mbàkke jeng ñoom moor Bey tey jii ñu nga fa di wàccee kaamil dëkk ba boo gisee ba tudd ko dama fa dem rek gis sëriñ Mbàkke jeng ak i bokkam la ñu defar ca dëkk ba waaw seen dëkkub maam la woon ñoom ñu nga woon Touba sax waaye dañoo mujj nag ñëw ca seen dëkkub maam lépp lu fa seen maam defoon à l'origine li ko li taxoon mu sanc dëkk ba mooy mooy mooy dañ ko ko dogaloon pour mu di fa jàngale alquran tey daara ju gën a moderne jafa seen maam bàyyi woon nga fa kër gu rafet goo xam ne président sax bu fa demoon mën na faa fanaan jumaa joj tabaar fa kàlla macha allahu tey jii ñu ngi fa yendu ba saan ñu julli ñëpp ñibbi yooyu mooy Sénégal Sénégal nañu suuxat suñu reen yi li ñu dal yëpp wallahi am na nit koo xamante ni di jóge fii ndakaaru dem ci dëkk bu sori daw ay cent cinquante kilomètres wala deux cent kilomètres defar fa këram di fa fanaane di fa yóbbu ay doomam bu ñëwee ndakaaru du nuroog ki amul dëkkub cosaan ndax ku amul dëkkub cosaan moo ko jën a yem garab nag bu amuti reen aw jën la fu la neex samp nañu suuxat suñu origine yi gëm suñu bopp amuñu benn valeur bu ñu war a jëgaane xanaa xaral la xam-xam rek mais tout le reste Sénégal am na ko su ma gisee léeg-léeg ab ab sénégalais boo xëy ndeysaan day gëmub araba gëma gëma gëma gëm ba defe ni araba yi yàlla ah nga gis benn sénégalais boobu tubaab jaral na ko lu d'ailleurs sax loolu nu nettali ci maamam yi mu ni du dëgg noonoo non ñooñu parce que binduñu woon amul benn histoire bu ñu bindoon lépp dañu koo defar après waaw aucune histoire waaw d'ailleurs boroom xam-xam yu mag yi sax amu ci ku jàngoon far <laughs> la ko ci bar ma doon wax ndax benn sénégalais bu jàng yeggagul na fa déedéet parce que xam-xam nekkul ci dangaa dem école ak demoo école boo demee ci àll bi di nga fekk genn góor gu jógee tool gàdduk sendalam mbaa mu gàdduk goppam wallahi bu ngeen toogee ci taatu garab mu jàngal la àdduna allo salaamaaleykum waaw sëriñ bi noo tudd ak foo nii maa ngi ziar bu baax noo tudd ak foo eh, nii lebal naa la ko bisimilah. <laughs> jërëjëf jërëjëf eh, lu waay am ak di lépp yàlla mën ko jox muy lu baax ak jàmm ak yaa rabbal aalamiin. Eh, maa ngi lay gërëm ci li mhm. mu toll nii. Mhm. muy man muy keneen ñëpp yem. Mhm. Euh, jàngkat yi. dañuy teg seen boppa ah. buur yàlla. Euh, lu ci waay bëgg. am ci nga am ci force. lu ci waay bëgg def ñu ko def ci force. loolu moo yàq amul ma Samba amul ma Demba. ñaati personnel ñoo fi jaar. ku ñëw ñu ne lekk yi day yàq. day lekk xaalis. keneen ku ñëw ñu na ci kooku day def nii day def nii. Mm-hmm. Macky Sall nag bu ñu jógee keneen ku ñëw mooy yéen. ñu dañ ñu may réew mi jàmm mm-hmm. ñu seet ñu maandu. Mm-hmm. wala ñu jël jël euh, nit yi lislaam yi dëgg-dëgg. dugal leen ci biir gouvernement bi. ñuy jubal ci dëgg-dëgg yu métti yi ñooñu ci nag yi ñaar doon ñu jullit. ñu délégation yi. am rek dafay am kilifa yi mag yëpp li ñu dëkk. ñu bëgg a toog bu jëpp. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi jërëjëf yal na yàlla boole nu ñaan yooyu <laughs> parce que ñun ñëpp soxla jàmm ak wér ak ustuut nag ni ko oustaz Alioune di waxe yàlla def ci suñuy poos dara parce que <laughs> am am amus lëf nag baax na waaye man léeg-léeg sax ma gis kook dañu naa moom moom immeuble bee ma ne xanaa kii nag war naa doyal <laughs> ndax loolu mënoo koo lekk sa girug dund war ngaa doyal waaw wax dëgg yàlla alal moom di ko dàq moom amul njariñ alal alal anamu <laughs> boo rombee fii place de l'indépendance baa nga dem ci immeuble El Hadji Ndiouga Kébé bi di nga xam ne alal am ko taxut nga sax fi waaw tey jii boo demoon ci alaaji ji li mbay mun la immeuble almet bi nekk place de l'indépendance su ma yëgoon jumaa laa koy def ndax lu baax du doy foofa mu rëyal boppam mètre trois cent la daa sol am ñu daan ñëw ci biir kër gi sax duñ ko xàmmee ndax woyof ga alal ji amul solo sëriñ bi yem leen te gore waaw kay allo allo allo waa salaamaaleykum sëriñ bi noo tudd ak foo maa ngi Ibrahima Ngom Ndaraatu Ibrahima bisimilah ah, ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah ah barki dem ba damaa da nga benn point ma doon oote fekk émission bi di jeex. waaw. ci étranger. waaw. Ah, parce que ñun Sénégalais yi dañoo dañoo sol trop ci bitim réew. Mhm. étranger yi ci nekk am benn benn benn benn problème. Mhm. Sénégal daal ak waa Dia ak boo fi ñëwee itam lu la neex boo xoolee tey ñu ci bay fii am yëpp étranger la. Mhm. boo xoolee étranger yi ci nekk. yëpp fi am rendement dañoo bari. Mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi jërëjëf waaw xam nga nag <laughs> am réew moom ah, mënut a ñàkki gan waaye lépp rek nañ ko teg ci organiser ko teg ko ci yoon xam nga maa ngi dégg benn jour ñu ne Dubaï amul benn étranger bu am moyen jënd fa kër waaw dañ ni ku fay jënd kër daal da ngay dëkk ci réew ma waaye loola nag eh, ku bëggum réewam moo nay doxee. waaw ah, mais am na ñoo xam ne ñoom na seen affaire baax rek ñooñu nag bu ñu sañoon yàlla bu ñu am benn cër ci Sénégal nga xam ne bos cëru cëram rek ko tax a jóg yàlla yàlla na ko yàlla jox as lëf te mu toog bañ noo yor parce que ki nu soxla mooy ki ki nga xam ne lu mu indi ñun ñëpp nu bokk ko muy njariñul ñëpp parce que nationalisme mooy defarum réew nit day bëgg réewam waaye boo ko bëggul wanteer ko du dara ci yow waaw ki nga xamante ni damay wax gars yi toujours ni leen <laughs> bu fekkee dañoo rey gàtt bi te yow ay béjjën nga ca am ak i geen akub der bu méddee it sa yoon newu ci allo. waaw salaamaaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak waaw bisimilah. waaw maa ñu ngi lay déglu. parce que dañoo xam ne maanaam euh, nguur gi fi mu doon nii. Mhm. xam nga yàlla dogal na euh, wax ji bari na mais. Mhm. ñun ñi fekkoon dañu ko jàpp dañu ay ñu am moyen. Mhm. dañuy wax lépp loo di yor mbir mi jël affaire yooyu noonu. waaw nekk ci wax ci te wax ñu benn njëriñ. parce loolu lépp doy benn xëy doy nañu benn loolu lépp en waaye nekk rajo wax télé wax toll jërëjëf sëriñ bi euh, loolu mooy dëgg na kenn ku nekk wax xalaatam euh, parce que loolu loolu mooy mooy mooy mooy li nga xam ni mooy dëgg waaw tey mu xalaat bi nag di rafet di xalaat buy defar réew mi waaw réew mi nag léegi ñiy wax waruñu wax dañu bari waaw comme ku mel ni suma <laughs> yow de yàlla la weer tey système <laughs> système daal benn chauffeur la bu alaaj Njaay bu nekk fii ci kër gi waaye ba ma juddoo léegi joolaa bu ma a fen ci moom laa ko njëkk a gisee <laughs> benn waaye ko nettali ni ko taal ngool ngool daal bu ñu daan football pekees poole yi ba <laughs> di yëg ca miir ba bënn di ko naan mais nettali na ko lu mat ñaari junni nit <laughs> te fu ma seen nettali ko joolaa bu ma lakkal la mais nag ku baax la sama xarit parce que nag il faut ma neexal ko ndax ponkal la te man comme goldeer laa te soriwul bi allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. dama bëggoon participer ci émission kër gi bu ngol ngol waaw ñu ngi lay déglu soxna si bisimilah. waaw dama doon bëgg participer rek di dëggal li muy wax. Mhm. di ko di gën gërëm nag di leen sant di dëggal li muy wax xam ne li muy wax dëgg gu wér feng. Mhm. en 2012 élection yi. Mhm. observateur yi bi ñëwee dañ ni y a deux yu des ci kii te kenn jëlu. allo yaa ngi may dégg. waaw waaw. yooyu yëpp ay étranger la yoo xamante ni. Mm-hmm. dañ fee ñëw inscrire. Mm-hmm. pour am nationalité. Mm-hmm. bañ jotee seen nationalité ñu dem seen yoon. parce que du benn électeur. duñu vote kenn. kon nag suñu homme politique yi ñooy jël di jaay dëkk bi. bëgg a fal wala bëgg nga kii tax nga jël ay étranger pël fu téye kii yëpp ku ne nga wutal ko nationalité. ñun duñu vote. nationalité bi moo leen sax bu ñu jëlee national nationalité bi dem seen yoon carte électeur di def ñu naan des na carte électeur di ñu retiré wul ak yëpp. jërëjëf dama bëgg a wax ni de gouvernement bi Sénégal dafa war a jóg ci étranger li ki nga taal ngol-ngol wax dëgg gu wër péng la. Mhm. foo tourné dugg biir Sénégal. Mhm. di koy yàq yëpp étranger ñoo ko yàq. Mhm. gang boo gis. étranger ko jiite. te juróomi étranger juróom ñaar benn sénégalais. ñu di leen jàngal yu bon. loolu daal laa bëggoon participer. di ñaan yàlla. bu dee 2STV sa kaw sa kanam rek parce que émission kër gi moom. bu ko mm-hmm. déglu wax dëgg yàlla mi ngi yeete. jërëjëf mi soxna si ah, wax dëgg yàlla loolu loolu ki koy def <laughs> ki koy def c'est un criminel hein. waaw ah oui loolu munul munuñu koo tuddee lu dul crime waaw jël ay étrangers yu dëkkul Sénégal utal leen i këyit pour ñu wateel la ah, c'est grave. et puis boo ko dégg man sama yaram a ngi daw sax parce que dama xamul lu waral loolu waaw yow sénégalais yi ñoo moom seen réew ñoo lay fal waaw ñoom koy fexeel ba convaincre leen ñu woteel la mais dem di inscrire ay gan ah ku ci am nationalité dem barki démb la ma benn waay bu nekk Gabon ni ma fii gis na fa lu mat ay ay vingtaine de de d'étrangers yoo xam ne dëkkuñu Sénégal yor passeport Sénégal mais c'est grave c'est très grave léeg-léeg nga gis nga am na bu bu xewoon fii ci ay ay ay maire yoo xam ne dañoo jàpp ña fa doon liggéey di wutal ay gan ay kayiti juddu di leen wutal ay certificat de nationalité ndax xaalis ay cent mille francs nga jaay sa réew koo xam ne mën naa falu ëllëg sax ci réew mi jaay Sénégal parce que bëggoo sa réew ñooñu ñoo ngi ñaan yàlla leen yàlla na saxal parce que réew mi il faut l'aimer pour pour pour pour pour faire le fair avancer mais boo bëggul réew mi sa poos sa poos rek cent mille francs tax ngay jaay Sénégal di jaay kayitu Sénégal dem di ko jox sa njaboot muy riba ñu di ko lekk bu ëllëgee looy jur ay agresseur ak i caga parce que riba nga leen suuxate mu ne suta lekk ci riba ba ba duñ ponkal di tekki dara nañu bëgg suñu réew waaw nañu bëgg suñu réew waaw mais Sénégal léegi booy booy booy seetlu yëf yi sax da ngay tiit da ngay tiit ab sénégalais attan na jaay nationalité sénégalaise à cent mille francs léeg-léeg sax moyen nga fekk étranger nga di ko wutal kayit mais bañu leen waaye nañ ñëw liggéey tegu ci yoon allo waaw kooku dem na mais léegi da ngay gis dégg nga ni ko soxna si waxee gan yi yëpp ay étranger ko jiite te étranger yooyu ci quartier la ñu dëkk ab sénégalais moo leen loué appartement ñuy fay peut-être cinq cent mille francs par mois te amuñu benn liggéey bu ñuy def nelaw ba mu neex leen yor seeni ordinateur bu guddee ñuy sàcc alali jaamur yi te dëkkuñu fi mais Sénégal bu fekkee noonu la neex nga fiy toogee ku mu neex nekk fi ñun fan la ñu jëm fan la ñu jëm bu ma bala may dee nag ñu naan fii la Serigne Touba tëdd ak Alaaji Malik yonent baa nga tëdd Màkka bi mu fa jógee quelques mois la ñu rey Hamza ku baax a baax ponkal mu rëy a nañ bàyyi yooyu boo bëggee mucc da ngay lal da moytu da koy lal mais nii ñuy doxee kenn bëggul réew mi yal na yàlla teg réew mi ci ñu ko bëgg loxo réew mi yal na ko yàlla teg ci loxo yu ko bëgg waaw yal na ko yàlla teg ci loxo yu ko bëgg allo allo. allo salaam soxna si. Euh, damaa bëggoon participer bisimilah ñu ngi lay déglu. en fait euh, dafa ñu ci wax léegi ci étranger ak ci colonisation. Mhm. te je pense que ci loolu man colonisation. Mhm. sénégalaise la ci laa jël ci laa yor ci mhm, xam nga bu defee différence. dafa nekk foofu wala li ko place yëpp ay sénégalais lañ. ku juddoo juddoo donc buy wax di étranger bu ñu cité benn. waaw. Euh, ah. Mm-hmm. ok parce que mm-hmm. mm-hmm, merci beaucoup. merci beaucoup kenn ku nekk rek sa xalaat ngay wax waaye nag euh, <laughs> léeg-léeg nga gis ku juddoo cim réew it te yaroo fa mais du tax mu am nationalité parce que nationalité mënut a yombe noonu. juddoo fii rek taxul nga am nationalité quand soxna si waaw parce que am na sénégalais yu juddoo France amuñu fa nationalité am na sénégalais yu juddoo Mali amuñu fa nationalité am na sénégalais yu juddoo Guinée amuñu fa nationalité am nañ fa kayitu juddu nag mais nationalité bi dafa am nu jaar y un processus pour euh, nga am carte nga am nationalité sénégalaise parce que nationalité warul yomb parce que nationalité ñi am nationalité ñooy aar réew ma donc munul yombee noonu. mais Sénégal euh, li mu wax nii c'est la réalité yàgg nañ ko dégg ah. ñu ni régime bi fi nekk wala beneen régime bu fi nekkoon wala beneen régime mi ngi inscrire ay étrangers pour ñu am nationalité sénégalaise pour mën ko wateel waaw boo leen inscrire kay du ñu wate ñoom nationalité lañ bëggoon après ñibbi nañu waaw loolu lépp pour aar réew mi la ñun bañunu na fi gis nga bu ñu sañoon sax Afrique benn réew lay doon mais comme Afrique ñoom amuñu matuk mën a ànd na kenn ku nekk aar boppam c'est tout bis bu ñu manee ànd doon benn réew parce que tey jii bu ma sañoon muy Gambie muy Guinée muy Mali muy Mauritanie muy Guinée Bissau muy Sierra Leone muy Liberia muy muy muy muy muy Algérie muy dëkk yi mais su ma sañoon ñu nekk benn réew mais amagunu mat gi amagunu mat gi parce que même dans nos pays il y a des conflits waaw ah, xam nga réew su toll ni Sénégal nga dégg ñu naan la ñee ngay xeex naan dañu bëgg indépendance bokki ñoom ñoom ñoom ñoom système yi ah waaye nag léegi génn nañu ca ñu ngi bëgg ñu ngi bëgg nag wéer ngànnaay yi parce que xam nañ ni euh, mbooloo mooy doole parce que bu ñu àndul nag wax dëgg yàlla nous devenons plus faibles et puis on nous exploite te dañuy continuer di ñu exploiter parce que nag vraiment euh, Afrique ñi xamul rek ñoo xamul waaye bu njëkk li fi ne woon mooy or bu bari ak xorom loolu la fi naar bi doon wut si loolu la fi tubaab bi doon wut si tubaab bi jël na or beek jamaa beeg euh, naar bi yóbbu na xorom si tabax nañ seeni réew après sànni nañ ñu teguñu nu sax ay nit. parce que euh, ba léegi indépendance yi dañ koy wax nii rek waaye <laughs> indépendance entre guillemets la waaw nit daal na sàmm réewam ku war a am këyit am këyit parce que léegi leen gis étranger bu fi ñëw takk ab sénégalaise jur moom i doom ah, xale boobu nag wax dëgg yàlla munoo ko xañ nationalité sénégalaise mais nag dafa am fu muy jaar waaye xëy xëy rek étranger bu bëgg a am nationalité ñëwoon ma bind la loolu waxuñu ko parce que nag euh, tudduñu benn xeet tudduñu benn pays mais nag yombewul noonu ah gis ngeen fii ci sunu sunu wet rek Mauritanie boo fa dee gan sax da ngay da ngay fay carte de séjour euh, parce que man loolu d'accord naa ci ah man je suis d'accord parce que man réew yi ma demoon yépp dama doon am carte de séjour wala boo ko amul euh, ay jafe-jafe laay dund loolu nag moom euh, bëgg réew mi la daal réew mi daal nañ ko aar daraam warul yomb noonu waaw asalaamaaleykum. waaleykum waaw sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. maa ngi di Mamadou Ba man lay woowee PAI. Ah, waaw ci seen bi laa bëggoon dugg rek. bisimilah. waaw parce que man pour le Fouta la mais li mu daal euh, rek waxuñu waxu pour le Fouta de étranger étranger rek la ah, ku fi dëkkul rek. étranger waaw femme boobu non non non bi femme bi femme xoolal bi moom xalaatam la wax yow waxal sa xalaat rek waaw. waaw ah, li ma xalaat daal dama xam ne étranger daal nekkul loo xam. déedéet déedéet déedéet. ñëpp la ku fi dëkkul rek étranger nga. waaw oh, réseau réseau bi réseau bi rek doo bouger tuuti rek réseau bi xaw a baax waaw. allo réseau bi la waxuñu waxu benn euh, xeetan ah. non non non ki jógee Gambie ñëw Sénégal xëy na am na fi bokk waaye gan la fi. ndax amul nationalité sénégalaise ki jóge Mali la même chose ki jóge Guinée la même chose ki jóge Guinée-Bissau la même chose ki jóge Mauritanie ki jóge Côte d'Ivoire ki jóge Cameroun ki jóge Gabon ñooñu c'est des étrangers mën nañ fi nekk nag ci jàmm ak parce que ñun fu nekk ñoo ngi fay dem dafa am lu ñu constaté loo xay dañ cee teg bët Sénégal nationalité bi dafa yomb ay sénégalais ñoo ma woo ca Gabon ni ma ñu ngi fay gis ñu fa dëkkut di ay étranger yor passeport Sénégal c'est pas normal ñun bañuñu ngeen ñëw bañuñu benn xeet ñëw mais bu ñu ñëwee ki war a am kayit na ko am ki ko wërta am bu mu ko am mais kaay leen ma defaral leen i këyit ngeen wateel ma régime bu ko def def nga erreur bu rëy buy topp Sénégal abadan c'est ça qu'on dit mais bañunu gan ñëw fi parce que ñoo ngi fépp boo demee Guinée sénégalais yaa nga fa boo demee Mali ñu nga fa mais amewuñu noonu nationalité mais Sénégal comme mooy réew moo xam ñun noo koy lépp sax naan caabi caabi bi ubbi buntu yëpp mooy xaalis xam nga buntu yu bon yi rek la caabi yi ubbee noonu waaw buntu yu bon yi la caabi yi ubbee noonu waaye buntu yi moom li ko war a ubbi mooy caabi ja koy ubbi waaye ginnaaw caabi joo yor rek te xaalis na ca buntu boo ko roof mu ubbi ko ña ña fa fekk ñu waye di lañu c'est ça salaam soxna si. dama euh, bisimilah. Euh, wax naan étranger. Uh-huh. dëgg la képp ku fi dëkkul étranger bi mhm. waaye nit ñi tamit li ñu gis rek la ñu mën a wax absolument ndax dañuy tabax seen kër mhm. dem luy ay étranger ñu nekk sa voisin daw ñu kaw salte bu ñu mhm. dem dégg dikk tudd leen naan dem ba yàgg koñ ba xale fopp benn portable bu ne xam ne kenn kaa nekk xam nga yenn yi wax dëgg yi la war a fekk bu baax a mhm. doo fa doole néew nga dëkk ci mhm. ñu influence sa doom ci gàm boo xam ne mhm. dugg ga vraiment lii metti na metti na war nañ ko seet li ñu wax dëgg la gang bu jiitu étranger man mii di wax nii étrangère laa jóge beneen dëkk nekk fi waaye dafa metti jërë jërëjëf soxna si. te nekk jërëjëf soxna si kii nag euh, suñu xarit jeeju moo ñu ko jox ku ñuy wax Antoine Guèye ñu koy wax Samul moom mi ngi réer euh, depuis depuis dix ans mat na fukki at mu réer am na actuellement war naa am ñaar fukki at ak juróom-ñett. mi ngi dëkk ci dëkk boo ñuy wax euh, Dagadaw après Kaolack waaw maanaam képp koo xamante ni daal gis nga Antoine Guèye mi nga dimbali ci ay mbokkam euh, parce que vraiment fukki at a ngi nii mi ngi réer te tey jii war naa am ñaar fukki at ak euh, juróom-ñett moom Antoine Guèye moomu nag eh, ku ko bëgg ku ci xam dara nga woo ci 77 662 32 69 mooy numéro bi nga xamante ni man ngeen cee jot ay mbokkam moom Antoine Guèye ñu koy wax sàmmul réer depuis dix ans waaw euh, ñun euh, wax dëgg yàlla waxtaan wi <laughs> ciblé wuñu euh, étranger dañ doon wax rek pour ñi nga xam ne ñoo bëgg réew mi ni ñu war a aare réew mi noonu lañ war a aare suuf si noonu lañ war a aare leneen ak leneen ak leneen xam nga dégg ñu bari ñu ngi gis ni ay chinois ñu ngi fi am suuf ay malaisien ñu ngi fi am suuf ay espagnol ñu ngi fi am suuf te boo demee France raar na nga gis lu mat ñaar fukki hectare ñun la ab Gambien ko moom wala ab sénégalais déedéet waaw am na réew yoo sax nanguwuñu ab étranger di fa jënd suuf ca capital ba xam ngeen la Joor li ko rey mooy slogan bi mu yoroon l'étranger na construit point gan du tabax am réew bu demee ba ay gan war koo tabax moom a réew tardé na ay doomam tardé nañu yaa yaafuus nañu c'est ça la réalité c'est des constats waxuñu pour bañ nañ kenn déedéet ñun bëgg nañ ñëpp ñun ñii sénégalais sénégalais yaa ngi takk ay ay jigéen yooyu dëkkuñu Sénégal yu baree baree bare na ñoo xam ne ay guinéen lañ takk ñii takk ay malienne ñii takk ay gambienne ñii takk ay ay ay ay sierra léonaise ñii ñu takk nañu fi lu ne te it boo fi yàggee nag dib sénégalais rek waaw waxuñu loolu waaye këyit wi it soo koy am na tegu ci wu yoon dafa am yoon wooy jaar pour am pour am nationalité sénégalaise mais bu fekkee boo yoree xaalis ñu defaral la ko ki koy defar kooku criminel la parce que mi ngi def loolu erreur ndax bu ñu demoon tey jii ba jox koo xam ne dëkkul ci réew mi réew mi mais mën naa koy jaay Sénégal ñibbi ci réew moomu dëkk parce que nag dëkk gi nga dëkk ci réew mi am na lu muy def ci yow lu rëy rëy rëy du question nag dañu bañ gan déedéet kenn bañu fi gan waaye nag nañ ko organiser teg ko ci aw yoon parce que loolu mooy yoon mais war mënuloo ñëw ci réew rek dem ci mairie alors ni leen euh, cent mille la ngi nii est ce que mën nga ma defal kayitu kayitu judd mu defaral la ko defaral la carte d'identité nga dem saw yoon waaw kooku nga jox carte d'identité def nga erreur waaw jël sunu suuf yi di ko dagg di jox ay ganit la erreur la hmm? erreur bu rëy rëy rëy la ah politiciens yi nekk fi di xëccoo suñu mel ni aw bong bong woo xëy xanaa la ca ne de neex na ah ba mu jaral leen dóorantey kor feñ ñu di leen filmer te ñooñu bu ëllëgee ñu ne dañoo bëgg a yor réew mi kii xeexee noonu vulgaire kooku kan moo kan moo lay dénkum réew di wax lu bon di saaga dëkk ko guddee ak bëccëg kan mooy manqué ba di la wateel naa la dama lay dénk Sénégal wala dama lay defub député ñun ki niy fal day am sutura am teggin di wax amub yar ah di gërmi am deret am lu muy bañ kooku lan bëgg mais soxla koo xam ni boppam la rekk ko tax a jóg coow li coow li coow li du ñooñu de ñun kenn soxla mooy les nationalistes ñi nga xam ni mën nañu jël seen bakkan joxe ko ngir Sénégal li Alboury Penda Birame Penda Ndiémé waxoon nee na ku xeex ba dee kenn mënu la waaw parce que nag ku xeex ba dee kenn mënu la <laughs> loolu mooy dëgg waaw bëgg réew mi la wax nañu bëgg suñu réew mais réew mi bariwul ñu ko bëgg bëggal seen bopp nag bari na fi coow yi coow yi loo mos la pour lan boo bëggee am teraanga da ngay liggéey da dem nga liggéey da ngay dem nga nangoo liggéey waaw boo xoolee réew mi ni muy doxee nii sax nga xam ne danoo waye di fi mu ne nii koo seen ma ngay jaay waaw 14 millions de sénégalais bu du 13 millions yi jaay ku koy jënd ku koy jënd bàyyi nañ tool yi bàyyi nañ napp gi bàyyi nañ lii bàyyi laa lépp lu ñu doon def bay am dara banan ko parce que ñun ñëpp dañoo bëgg a xëy <laughs> xëy xëy riis asgor moomu ko de waaw la sama papa doon wax naan as gor bu sukkee ci dëxin bu ci tibbee ñetti tib sax moo ki nawleem dëxin nga jeex bu naanee potum ndox man ni suur buñ tegee ginaar sax ni ko kaay sukk mu ni mu ni suur naa as gor du sukk ci ndab yëpp fu ñu la ni raxasul sukk nga sukk xoolal gaa yi ni ñuy politique ca Senghor ñu nga ca woon ànd ak Senghor Senghor daanu ñu koy xas dem ànd ak lay Wade ni ko yaa fi man Ablaye Wade daanu ànd ak Abdou Diouf di ko di xas waaw di xas Senghor ni ab du juuf yaay waaja ah, du juuf dem Abdoulaye Wade falu ñu ni ko ndeysaan xam mosul bu nu xamoon ni nii nga mel fal nan la bu yàgg Abdou juuf du dara lay Wade dem ñu ni Macky yow laay <laughs> eh, Macky kii bokku ci xam nga ñooñu koo xam ni ku ñëw mu topp ci sa ginnaaw ku ñëw mu ni yaay waaja waaw kon kan mooy waaja ak moom lu mu doon moom moom moom kooku ku ñëw rek nga ni yaay waaja <laughs> gaa yi daal damaa defee ni sax bu buñ génnee dem seen kër buñu du ñu xoolanteeg seen doom yeeg seen jabar yi parce que am na noonu bu ni sa baay nekkee wala sa yaay defe naa bu wàccee bu ngeen jàkkaarloo les yeux dans les yeux su amul kersa am na lu am na lu manqué ci moom waaw ñun dafa am critères yu ñu daan fale te gars yi dañ koo sànni léegi nee nañ amut nee nañ juddu amut <laughs> deret amut fu loolu amul lu fa am <laughs> fu juddu amul deret amul ah waaw ah, kon ni ngeen ko déggee defe naa ni waxtaan wi yegsi nañ nag ci cëppaandaw li ñuy jégalu nag di jégalu parce que waxtaan la bàyyi maam benn mbuub daan wax rek yàlla ko yàlla xare àjjana nee na waxtaan tuddul waxtaan wax taaj la léeg-léeg nga wax lu neex kee wax lu naqari kee waaye neex ñëpp wóoru naqari ñëpp it waxal rek dëgg parce que dëgg yàlla moo ko moom ñuy nuyu suñu xarit Thierno Correa ca Côte d'Ivoire di ko ñaanal xéewal ak jàmm ak salaam parce que mi ngi niy jàppale bu baax ci émission euh, dem yooyu dafa am solo di nuyu suñu xarit Ali Khoudia Ndiaye waaw di ziar aussi sama mbokk Massamba Niang dëkk gëngu di ku bëggi bokkam ku nangoo sonn ci mbokkam barki dem bi ma demee Kajoor gars yi bu ñu ma gisee rek dañ ma naan dañ lay yóbbante ci moom parce que fi mu ne nii sax Kajoor kenn mënut fa politique ndax bàcc ñang <laughs> ndax la mu daan def waaw ñu koy ñaanal xéewal parce que nit nag bu amee dara day dellu ca dëkkam defari ko waaw amub dëkk di fa fanaan tuuti waaw jël say millions yu bari yóbbul leen courant ñu dëkk fa yàlla la ko yàlla remboursé di jaay say diw jóot fii ak fanu jëm loolu na nit ku baax di def bu la yàlla mayee wërsëg da nga koy bokk ak say bokk dimbali leen ndax ku jekk te jekkaloo say bokk yaa leen jekk di salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba beneen yoon incha allahu rabbi jërëgéen jëf